ci mbekté gu yaatu le quartier Touba Fall nga ci nekké ginnaw biñ togué ay wër yu bari jafé jafé courant nekkon seen yitte bobu la jafé jafé nak dafa melni fiñ tolni kat maire bi di ba na courant ba ba kenn ku ci nekk fo mëna dëkk ci quartier bi da ngay am courant mu yok pot lamp ya ta lamp ya kii nga xamné ne modi Serigne Fall nekk conseil municipal di ay cadeau diglu ko ci micro seen set moom kàddu la yo xamné bi yomb yomb lay doon yu leer nañ ndax loolu mom suma ko waxé dama ci mëna tek baram ndax man na ci féré ndax yaakaar naa koñ bi bi ma fi ñëw am na ñu ma fekk waaye lu néew néew man am naa fukki at ak nangam kon bi may ñëw ci koñ bi am na nu koñ bi mel waaye boobu ba fi mu ne nii di bëggee yàlla suñu borom dolli ay leeram te dolli yërmandeem lu mënoon rek doon na ko jéem ah ba ci ki nga xam ne moo fi jàll mooy euh, beneen meer bi ci tege Abdou Mbacke Ndaw waaye nag jëf ju réy daal moom ci moom mii nga xam ne mooy Gallo ci moom lañu ko gisee ndax fii làmp yi su fekkee amul nat fii la yemoon ci sama buntu kër bi man te boobu ay poto rek fi nekk waaye maanaam li ko jéggi nii ba jéggi ba tali tali bëggee ba jéggi tali ba foofu benn poto néew néew woon ba ab làmp di fa nekk kon nag suñ demee ba ay poto taxaw fi nii ay làmp yi leer nañ kon loolu la jëf la joo xam ne war nañ ko mën a wane ndax xam naa ne sax li fi jiitu mooy fii moom làmp bi mas a sàkk kenn ko ne sa buntu kër làmp ba fa nekk yow yaa fexe ba ak bañ am am ci goo xam ne bi ab làmp dana ca mën a monti loolu moo taxoon la ca dolli mooy kon bii làmp yi fi jëkkit gone kon bi ñoo daa ñoo daa dajee dugg ci kër kilifa yi dugg ci borom kër yi kenn ko ñoo ñu laaj la nga am nga joxe ko ñu jënd ci ay làmp monté ko ci làmp monté ko ci poto loolu moo tax làmp yi daa tàkk waaye nag lii nag moom mi ngi soog am man de maa ngi ciy soog a teg sama bët jëf la joo xam daal kenn ku ne mën nga ko wanee ndax mbooleem mbedd mbàkk yi mbedd moo dugg mbedd mu mag wala mu ndaw moo ci dem rek mm-hmm. làmp yi moom samp nañ ko ba mu daj mm-hmm. fii liyaat takk nañ ko moom daal la ci def mooy nañu fexe koñ bu ne ñu defal ñaari làmp la ñetti ndàmp xam naa su mënta daj daal nañ fexe bala ñoo màggal rek moo am déclaration bu leer ne bu leer naa ñu lay doon ba fépp foo xam ne dina fa teg tànkam dina fa mën a ñemee jaar ndax fi ni bu jëkkoon li boo masaa jéggi tali bee koo yónni fii danaan lu ma dem ndax foofu dafa lëndëm te it ba wóor ndax man sama buntu kër bii gis naa ñu sëfi ñu këfi portable jigéen ba te ñàkk leer doo nga ko da ngay avancé ne ñu yor sa téléphone ci di téléphone ñu dali koy këf ne fees kenn du la gis te kenn du la mën a topp ndax xamuñu foo jaar ndax na lëndëm kon soo xamee ne dem na ba yàlla dogal làmp yu ñëw nii ah wax dëgg yàlla ak cant la ngërëmul jëf na ko ko jëfa ko moom moom daal ñu ngi koy ñaanal ci kàttanu yàlla ak dimbalam gën maa dem ak sëriñ bi lépp lu mu ci jëf yàlla na daje ngërëmul jëf la ndax jëf moom jëfal askanu askanu yi moom ci la lépp nekk ndax doomu aadama yi loo jëf ñoom rek suñ borom nga ko defal te lii moom jëf la joo xam ne saaroo ci ñëpp Mm-hmm. ku ne yënga ci sa bopp mm-hmm. lii mooy jëf yëkkati ab xaalis di ko jox ni muy tekki muy dugal ci boosam baax na waaye nag lii moo ko gën ndax lii moom day day tasaaroo ci askan yëpp kon nag na ko kanam baax yàlla na ko suñu borom doole jàppale mm-hmm. ba lépp lu mu yéene ci dëkk bi ba mu bëgg ko ci lu baax yàlla na ko suñu borom dimbali ba mu jëf ci lu koy njortam ñun nag ñoo ngi ànd ak moom rek ñun ànduñ ñoo Macky Sall galaba la ñu àndal ngir lu mu wan ku ñu jàpp ñu jàpp la ku ñu téye ñu téye la ni ñu téye nag ah bu ko bàyyi na ko te nañu téye rek ñu jàppale ko ndax ku jàpp dëkk bi ñun dëkk bi fi lañ juddoo fi lañ fi lañ fi lañ màggee yarawuñu waaye juddoo ci dëkk bi bi ñu yaroo fii lañ jël siwaat ginnaaw sëriñ Abdou Lahad kii nga xam ne moom moo di Alioune Sall dëkk ci boobule quartier yëkkati na ay kàddu moom nag ma ngay ñaanal maire bi di Gallo Ba moo ngi naan ko dëkk bi dëkku maam Cheikh Ibrahima Fall la loo fi def rek sa bopp nga ko defal kon nag ñu déglu sëriñ Alioune Sall ci micro seen set salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci di leen siyaar bu baax ñu ngi tudd Aliou Sall bokk ci waa kër Serigne Modou Aminata suñu jëwriñ ngi Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou Aminata ak Cheikh Moustapha di leen ñaanal suñu borom yàggal leen te wéral fii nag ñu ci ëpp ñëpp diggante waa kër Serigne Cheikh Fall Khady Gueye ak kër Serigne Modou Aminata ñoo nekk ci quartier bi ngay ne ak waa mu Serigne Modou Moustapha Fall yi ak lenn ci talibé yi ñet ci bokk nekk waaye quartier bi lo loo bi bii na ak sécurité lolu bëgguk sëriñ bi la ndax ñun sëriñ bi ñoo ñu jaboote sunug wér moo ko gënal suñu juk moko ko gënal ba taxna nak lu ñu ci wër gi ak juk gi ak sécurité bi ñi ngi ñaan suñu borom jàpp nañ ci loolu jàllale ko ci loxol maire ba lépp luñ ci séntu ñu am ci lu kawe suñu jort quartier bi daal lu ci waaye def doo ko réccu quartier bi Cheikh Ibrahima Fall la ñu fi nekk ñëpp njabootu Cheikh Ibrahima Fall la di ay sët di ay taalibe di wuyoo Fall ñu ngi koy sant bu baax nag ci liggéey bi nga xamante bi tàmbali na ko ñaan suñ boroom àggale ko ci jàmm ci tamit mu jig ko waaw làmp moom ku ko ko nit suñu boroom mën na cee jaarale niital la say mbir yàlla na ko ci yàlla defal. ginnaaw Alioune Sall dox nañ ci biir boobu la quartier askan wi nak ñay wëy di yëkëti seen kaddu góor gi ci la bokku mom nak kontaan nak mbégte la andal ma ngay ñaanal maire bi di bu baaxa baaxa baax ñu déglu ko ci micro seen set wax di yalla baax na lool ah ñoo ngi ci gi yoo na di sant nañ ci yalla tax mom wax di yalla ni mu dikki mom ah mel na dina baax té itam bëgg nañ lo xaye li ah buñu sañu tam ni lay jappalé won dañ lay jappalé war tax ba nga ko waxee tam la nga def nga ko la nga waxon def nga ko nee nga moo fi amee jotee mairie bi de li ci war lépp dina xam naa du ma mën lépp waaye naa def lépp dina am lu ma def a ah, léegi nag te am na lu mu tàmbali wax dëgg yàlla lii moom baax na gis nañ ko léegi nag mbirum ndox mi moom moom ciy des ndox moom doom moo dañ ko manqué noonu ci koñ bii moom loolu ci kocc boor yi ngàcc ngàcc kër bas waaw fii daal dañ fee manqué ndox torop ndox mi nag bu am ñu woon itam day gën a baax rek te noo mën a def itam ñoo ngi lay jàppale ba ñoo ngi sa gannaaw rek ginnaaw quartier Touba Fall Ngathie dañuy doxantu ba quartier Mbacké Dimbu boobu la quartier askan wa fay yeewoo yàgg nañoo am jafe-jafey courant ba tax na sax bu yàggu dara ndaw ya fay yeewoo woo nañ taskati xibaar yi takkoon ay morso yu di ñaawlu anam bi nga xamante bi moom la kilifay Senelec yi doxalee waaye boobu la jàngoro nag bi mu tàbbee ci nopp ki nga xam kàddu ci micro seen set ndax li yàgg nañ kaa bëgg fii ci Mbàkke dimb mu jafe ñu lool mais bi mu jafe moom bi mu toogee macha allah doon maire doon ministre ah di lijjantee ci kaw di lijjanti ci suuf ba yàlla def lii mu dugal ci loxoom ba mu sotti kon dañ ko koy gërëme di ko sant ah di ko ñaanal yàlla li mu yene ci Mbàkke ba laaj Mbàkke yàlla na ci yàlla may lu kawe njottam ci barke Seydina Muhammad ah añu ñëpp ñu ànd koog moom ah di sant rek di gërëm di wax yàlla na ko yàlla bàyyi xelam daal ba fi mu bëgg a yóbbu Mbàkke mu eggale ko ginnaaw Ndeye Ndokho ki kii nga xam ne mom moo di Moustapha Sène dëkk la ci quartier Mbàkke dimb moom it yëkkati na ay kàddu ñu déglu ko ci micro seen 7 di nuyu ñoom Awa Ndiaye ja ñi ñu àndal Abdou sey ak euh, ab sa soxna ab sa Ndiaye di nuyu ñoom Matar Kan ñoom bay si wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na di ziar garaaw Abdou Dia moom it gis nañ taxawaayam moom it yàlla dogal na ci mbàkki dimba la bokk léegi ndax këram fi la nekk mu ñibbisi fi lii duñ koy rafetlu ñaari mbàkki dimb amut benn mbàkki dimba am lépp lu fi xale di xeex mbaa mag di fi xeex ñun ñëpp. njëriñu dëkk bi lañ bëgg mhm. ñoo bokku ndey ñoo bokk bàyyi mhm. réeroowuñ ñàkk waxtaan rek am mhm. luñ doon ñaan yàlla xale yi di mars di takk ay mars yu xonq lii rek lañ bëggoon kon yàlla sottil na ko alhamdulilah rabbil alamin lañ lu ci des nag mooy yeneen projet yoo xam ne meerañ ci ci mu leer ñu nañ pavage bi incha allah rabbi fan yi néew mu tàmbali tëli ndox courant incha allah rabbi lu doon ko fale lépp mu nga ca te loolu mu waxoon defar Mbàkke ma tax a jóg mhm. rus naa jaawale poos dëkk bi ak sama poos mhm. galo maire bi day soxla mu yeex mu jël ci poosam def mhm. lu ma wax Maam Njaay mi sedd na ci kon daal ñun daal lii doon ñaan yàlla ñu ngi leen baal ak di leen baalu ak di ñaan suñu doon defal njàmbar Serigne Touba. ginnaaw Moustapha Sène kii nga xam ne moom moo di Mamoune Ndiaye nag nekk cabinet bu maire Gallo Ba yëkkati na ay kàddu ñu déglu Mamoune Ndiaye ci micro Sen 7. jël juróom bi ko teg ci sëñ Moustapha Ndiaye m nga biir Mbàkke ni mu lañ kon bu ñu fi nee faaw ñu ko sagal ko

Eh, ay dañ daan ne cinquante postes indi nañ ko me mel lépp Touba lay dem mais xarañteem ak fulaam moo tax ren jii ñu indi ko ci Mbàkke ji ku jàpp na nag yaa ko fi indi man jàpp naa ne yaa ngi nax sa bopp waaye nag dañ la ci boole parce que fi nga dëkk tey ci njabootam nga bokk ku nangoo ko bañ mm-hmm. kon ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ñaan vraiment ndombam yokk équipe bii ñu àndal aussi muy xale yi vraiment ñi ngi lay ñaan aussi ñu nekk mag ñoo xam ne bu ëllëgee mhm. ah moom bu poussé ñooy ñu mën yor dëkk bi parce que seen loxo set na ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf ginnaaw Mamoune Ndiaye kii nga xam ne moom moo di taqale tamit yëkkati na ay kàddu moom nag nee na dimbu yàgg naa ñàkk courant moom fa a dëkk ñu déglu taqale ci micro seen set dëkk ci koñ bi ñuy defee lii mhm. aussi wax ji di dem fu ne mhm. kon li may wax dama ko war a xam mhm. mais man fi may commencé mooy dañoo sant yàlla parce que fii ma taxaw di wax kër guñ fi def fii la ma fekk fee ma dëkk sama wajuru jigéen lañ ko mayoon mu jóge fi ma donn ko mm. kon xam naa li may wax fii mm. kaddu gii ñu jàkkaarloo yëng naa fi dagg kaddu ba tàyyi mm. kon lu bari fekk na ma fi Mbacke Dimbu doonoon koo xam ne kuñ fi mas na la fi nga dëkk ñu am côté boo xam ne dañ la fay dawee mm-hmm. léegi nag loolu lépp dañ saafaraw mm-hmm. ba yàlla dogal na fi mu ne kër yi cinq cent mille franc boo ko amoon am ko waaye fi mu ne quatre millions taxul nga jot la ko def nag mooy courant bi fi dugg si ak ndox mi galoo wax benn wax boo xam ne daf ma marqué parce que damay bàyyi wax xel keroog biñ ne ko dañoo bëgg nga dimbali ñu ci courant bi la ne dëkk bi bis bu ma ko yoree danaa ko def kon lam diggante woon ak ñun def na ko sama koñ nag laa taxaw di wax damay wax li nga xam ne moom important te moo rafet lii mu def nii ñi ngi ko ci ñaanal ci barke bi yalla ak yoonent bi mu gën ko man parce que nak gor gor la mm-hmm. ndooyeen sori na gën sorina mm-hmm. waye ku taxu mbak dimbu du seen kërëm mm-hmm. kon buy def dara def ko mbak dimbu def na lam wara def wa salaam ginnaaw postu mbak dimbu maire bi di galo ba yemul ndax te kat neena na bi day mag ta askan wi dañoo wara am courant ba taxna na yok na courant bi lu bëree bëree bëri fi nak fa la bokku fi nak ay bondu lañ fa def ban fa yeggee nak ki nga mom modi Abdou Dia yëkkati na ay cadeau ñu déglu Abdou Dia ci micro sen 7 fi am seen terrain boo gisee fii ay chantier rek nga ngi tabax ñi ngi continuer ñi ngi finition bëgg a màggal si kon fu courant am ndox am fa te moom mi ci courant bi mi ngi ci ci suba bi ñu ànd ak lu mu wax nee na balaa balaa màggal gi balaa une semaine moom mu dóor ko mu daanu mu dem xam nga ku la wax loolu mooy wan ne ñun daal moom nañ ko sant rek encore une fois parce que man moo wéy dëkk sama kër ni solaire moo fa ndax ñu bëri dañ wax man mayoon naa xaar dana metti nag parce que da ngay tëdd mu tàng jër mais tey lu ñu amoon ci métti dañ koy am ci mbégte te màggal soritu ay fan la ndaal dañ koy sant encore fois di sant nag équipe bi ñu àndal parce que a mais dañu bi ñu woowee dañu ñëw ànd ak moom na ànd ak day noxo ànd ak euh, Abdou Seye ànd ak Mamoun Ndiaye le chef de cabinet moom itam dañ koy sant parce que léeg-léeg bu lépp bu bu moom day def kàddu loolu yëpp naa nekk mën na nekk ci plan directeur bi donte nag gisuma xam ne moo nekk ñu Cakala euh, moo nekk astafurlah Mbacke Dimb li projet la boo xam côté dañ wax ak monsieur parce que monsieur fii la dëkk beneen bi ci des mooy am nañ partenaire boo xam ne du ma tudd tur parce que dañu bañ ñu anticiper ko nee nañu mën a bind lettre pour ambulance léegi des fois dañoo problème waaye loolu kon ku ñëpp ku ne dugal sa loxo di sant encore une fois nag lii nii parce que dañu nekk ci jamono yoo xam réseaux sociaux yow soo ngi def liggéey am solo yow Matar Mbaye si Mbàkke nag dañuy wax ñu bàyyi leen wax liggéey parce que communication bi man journaliste la moom laay jàng professeur laa waaye damaa dem di fay mille chaque mois di jàng maa ngi troisième année yor sama carte nationale de la presse wante dama ne bu Mbàkke soxlaa lépp lu ñu doon dañ ko fay teg ndax li ngeen liggéey Mbàkke la ñu liggéey fii jaaw ab chinois néew fi ab jàpp ne waa Mbàkke fi di sant ñëpp leen gërëm encore une ne Mbàkke nañu xam ne suñu booloo fii la sëñ Tuubaa gane àdduna ci saayir bu ñu booloo kenn ëppale wu ñu doole wax ji ci contre nañu jàpp ne euh, nañ positiver critique bi ndax li muy wax di yàq buñ ko jàpp ne day yàq dañuy alerte ñun ne ci liggéey bi parce que Galo Ba waa Mbàkke ko fal mu doon meer waaye ñun ñëpp ay meer lañ ku ci nekk quartier ba nga nekk kër ga nga yeewoo meer nga fa loolu la ñuy defaree dëkk bi ndax tey jii nii ku ñaan dëkk bi euh, di jaar ci beneen anam amul benn infrastructure doo ca mucc waaye ku ñaan mu jëlee di indi te xam naa ne day jël di indi ndax am nañu chance am maire boo xam ne doo fi ma a dégg terrain bi moo ko jël li may wax xam naa ko bu baax doo fi mos a dégg fonds yi moo ko ne kon loolu déjà c'est un c'est une chance c'est une chance ñoom nañ ko ñaanal ak Gallo dafa mooy mooy ku mu gis ku